toog naa fii ne la alaa mhm. gi dégg ismina laxtam mhm. bu ñu mën a ñaan yàlla Ousmane Sonko ba mbokk ci élection yi amul mas naa ko wax dañ ko vaar juróon na fa coow lu rëy nag danañ ko vaar mi mhm. noon dana ma ko indi fii ngeen seetaan ko benn ñaari bis topp ma jëlee benn affaire Bassirou Diomaye Faye du bokk ci élection présidentielle yi déet Bassirou Diomaye Faye mii waa Pastef jiital ñëpp di ko estati ne moom mooy nekk candidat Pastef te day gagné yow nga ne du bokk ci élection yi mais duñ foo nga tegal ma vaar bi ma waxoon ne. su Ousmane Sonko bokkee tudd leen ma xaj. naa ko. monsieur Diomaye Faye. su bokkee. waaw tudd leen xaj yow ko loolu gën a dee. dañoo seetaan vidéo bële waaw yokkal. Pastef. képp ku ci mos a bokk. Pastef. waaw képp ku mos mhm. a bokk Pastef. waaw. Birame Souleye Faye ak Birame Souleye Faye mhm. Birame Souleye Diop ak Guy Marius Sagna ñëpp ku ci bokk. Mhm. kenn rek kenn. waaw loolu xaj tuddee ma ko. maanaam kenn du bokk ci élection yi 2024. képp ku mos a am ak Ousmane Sonko benn xalaq. waaw élection présidentielle doo ci bokk. am na ñoo xam dañuy soog ay connecté eh, di laajte ndax gi bi génn na liste bi génn na <laughs> la liste officielle bi nga xam ne ñoom la waa conseil constitutionnel publié vingt candidats la ñu ci retenir Karim Meïssa Wade la ñu ci ñi nga xam ni nekkoon nañu ci 21 candidats yi recours Ousmane Sonko bi dañu ko daal di rejeté loolu mooy li nga xam ni euh, jot na fi tukkee pour ñi nga xam dañuy soogay connecté liste bi nii la tëddee Boubacar Camara euh, Cheikh Tidiane Dieye Déthié Fall professeur Daouda Ndiaye Habib Sy Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba euh, Rose Wardini Idrissa Seck Aliou Mamadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Mohamed Boun Abdallah Dionne El Hadj Malick Gakou Aly Ngouille Ndiaye Elhadj Mame Boye Diao Bassirou Diomaye Diakhar Faye eh. <laughs> Bassirou Diomaye Diakhar Faye Bassirou Diomaye Diakhar Faye Bassirou Diomaye Diakhar Faye Like leen partage leen ba gars yi bu leen fàtte yéen si wàllu spécial code promo 21 la saa bu 156 francs lii daa ko la si ko